projet bi àdduna ak àllaaxira ñëw dajaloo ne dañuy def ay lobby nan dañuy foowee ah kuñ ci nax yow la de kuñ ci nax sa yaaya baaxul kuñ ci nax sa yaaya baaxul waaye day ñun fekk nañ démb te du yoruñu tamit ay xelu nag yoo xam ni tey dangay ñëw ñu fàtte déedéet yoruñu xelu nag de non non non non non non fii dafa am lu defu té ñi taxaw tay yaan naan dañuy bëgg représenter Serigne Touba ñooñu Serigne Touba da leen xalak bokku ñu ci mom ay nit yu salta lañ ay nit yo xamni ni man yaakaaru woon ci aduna mun aduna mun na dox ba ñooñu taxawaat jël kaddu Serigne Touba wala di melokano di sakato melokano Serigne Touba naan dañ ciy xeex <laughs> ñooñu dañ heure bi dañ la waran tagali islam dafa waran tagali sen bop yi sen baat ku ci mel ni Modou Baara Dolli ah yéen fàtte ngeen ki kii nii waa ji da ngeen ko fàtte kii ki fàtte ngeen kii lañ jàpp weeru koor ki gis nii mu mu mu dajale affaire naan day xeex day xeex kii lañ jàpp weeru koor ñëpp woor ñu jàpp ko mu të muy tëddee jabaru jàmbur weeru koor kii kii di tëddee kii di wax di bay kii moo tëddee jabaru jàmbur weeru koor ñëpp woor di jaamu suñu borom ñu jàpp ko xoolal ñu jàpp jabaru jëkkëru jàmbur jàpp ko muy tëddee jabaru jàmbur mi ngi ci internet bi mi ngi ci internet bii de mi <laughs> bi gis ko barke alxuraan kii la doon tëddee mi ngi nii Modou Ba mi ngi nii Zahra Nasr mi ngi nii kii la doon tëddee weeru koor ngeen foog ni sëriñ tubaa dina kontaan ci gis Modou Baara Dolli Mbàkke mu téye kàddoom nan da koy xeexal ngeen foog ni sëriñ tubaa fu mu ne xolam sedd na ci lii mel ni ku rafle ay nit yu baax ab takkatu jabaru jàmbur jabaru jàmbur bu ñu jàpp lii dossier bu retentissant la defoon ci ci yàggul la dame Zahra Nasr jëkkëram di Cheikh Amar bokku la Cheikh euh, TSE ñu weeru koor bu yàlla ñu fekk baara dolli di ko teudé ñu japp ko flagrant délit ko ni ko ndayam juré di teudé jambour ji bañ en 2011 qui mi ngi fi scandale sexuel Qui Qui <laughs> mi ngi mi bi wax quoi ki heure bi bu doon senegal diine islam mo fay daw sharia waxatuñ ko heure bi ki kay heure bi fan lay ne ki fan lay ne bandi salte yi ñoo génne def seen lobby ne dañuy xeexaate dedet mënul nek bu doon bu doon vraiment ay nit di set yu sell yo xamni dañ leen rañé ci ligéel señ bi dañ leen rañé ci set ak satal mais ñu jubadi rek ñoo boro motax dara réussiruñ ko ñun ñi ay murit lañ mais mënuñu ñoo nax xool leen seetluwu leen saa yu ñu defee bu doon tey dafa am guerre an contre ñu contre euh, Cheikh Omar ak ñoo ko contrôle mais Cheikh Omar day gagné nag bi yëpp ñu contre Cheikh Omar <laughs> gars yi dañ leen di écrasé Cheikh Omar gagné na deux cent pour cent deux cent pour cent la Cheikh Omar gagné ñu no ñu koy noonoo fan la fa foo leen gis ñu wax ngeen gis murit yeeg tijaane xaadir yi ñi ngi attaqué gars yi te man mii murit laa maa ngi man murit saadix ñii nii taxaw ni maa leen gën ci ndey gën leen ci bàyyi man kenn fekk fekkuma may njaalo fenn fekkuma tëddee jabaru jàmbur ñii dañ leen ci jàpp ñii ñu fekk leen ñuy sàcc ñii ñu fekk leen ay ñu muur bu sa jeng ay bandi santé naan ko tub sàngara mais tey jii ñëpp a ànd parce que manipulation yi moo doxul nga dem jël mun naa leen ko woon nga dem jël ay vidéo daggate këppati jël la la ci arrangé ne da ngay manipuler lu ci bëri nangoo koo jël nangoo koo teg nga nga teg nga ne yow ñun ngay fowee non ñu dañuy murit yow yoo xam ne murit yoo xam ne leen di takk buum nii rek di di di xëcc ñu ñëw topp déedéet déedéet Sëriñ Tuubaa daf ñu jàngal jéggale jëllale jàll ci leneen ak lu ko lu mu ko daj ci loxoy tubaab bi bu mu ñëwee buñ nekku dangay ngay def ne dem jéggal naa leen ah, ku xam Sëriñ Tuubaa ci melokaanam mën-mënam kàttanam nga xam ni yow tuuti nga naan da koy fayul boo ko wóoloo dëgg dëgg dëgg dëgg boo ko wóoloo dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg nga koy fayul parce que bindul fenn ci xasida ne buñ ma manqué respect rey leen waa ji fatwaa ko dóor leen ko taal leen këram loolu Sëriñ Tuubaa bindu ko fenn ku ko def bandi nga ku ko def bandi nga génn nga ci yoon Sëriñ Tuubaa amul fu Sëriñ Tuubaa bind ci xasaay am yii ak ci dundam ne ku ma tooñ rey leen ko amul fu ko bindee kon képp ku ko def génn nga ci yoon bi <laughs> képp ku ko def génn nga ci yoon bi boo identifié woo ci yoon bi sax bandi nga parce que sëriñ bi santaanewul loolu ñun lu ñu sëñ bi jàngal vraiment waxul ni buñ ma manqué respect rey leen kon bu doon loolu bu ko tubaab bi indee danaan rey leen tubaab bi kon ku ko tooñ moom moom mun na ko lijjantil boppam dangaa tuuti yow pour lijjanti ko te na ko bëggee lijjanti moom sant la ko bu ñëwoon mun dana ñëwaat danaan la man est ce que ma la sante yow ni ku ma manqué respect ni nga ko wara a defee sëñ bi bindul loolu sëñ bi bindul loolu fenn fenn fenn fenn ku nangam saga ko ku la kii taalal këram ku la ko ñoom ay bandi lañ ay bandi lañ ay bandi yi saketo yoonu sëriñ bi lañ ay bandi yi saketo yoonu sëriñ bi lañ mais ñooñu duñ gis ak sëñ bi sëñ bi loolu loolu 7500 amul fenn fu ci bind ku ma manqué res nee na dem na ba ne buñ may waxtaanee fuñ may waxtaanee te xamuñu ma ña fay wax lu safaanu nee na jóge fa nee na jóge fa dawal boo munoon sax yëg ci fas daw ba fas ba dee defal loolu mais waxul dóor leen de <laughs> sëñ bi bindul loolu fuñ may waxtaanee safaanoo rey leen leen leen <laughs> sëñ bi waxul loolu de dóor leen leen leen rajaxe leen leen de sëñ bi waxul loolu de ku ko def bàddi nga daf na daw leen daf na moytul foofu jotaay jooju ñu may waxtaanee te xamuñu ma te dañ ma umpale ne neen daw leen moytul ma leen jëlal la jëlal fas làbbali ko ba fas wa dee ngay daw di daw di daw di daw ba ba jeexal ba jeexal <laughs> ñu de loolu lañ sëñ bi jàngal kon ko la naan kii dafa manqué respect sëñ bi fatwaa leen ko kooku kooku bandi la de kooku bandi la ràññee leen nag ay bandi yi nekk ci yoon bi ak ñi ñi safaanoo li yoon bi wax ak ñi nekk ci dëkk yoon bi dafa am ay ñu ñu safaanu ñu ñu bandi sax ay ay tëddkatu jabaru jàmbur ay sàcckat ay fenkat lépp nga ci biir yoon bi mais nag ñooñu duñ gis ak sëñ bi <laughs> duñ gis ak sëñ bi sëñ bi caaxaanul caaxaanluwul yoru sabar yoru riiti te yoon bi dem nañ ba nga xam dañ ci gis sabar dem leen xool yoonu Cheikh bii ba xam fekk ngeen ci barabam ci barab ak ak lim fi bàyyi ba xam fekk ngeen fa sabar yéen dem ngeen fi fa ñu denc Cheikh fekk ngeen fa sabar dama lay posé question ba xam yéen fekk ngeen Cheikh Ibra yoroon sabar rëng jëng rëng rëng jëng kan kan kan moo la mën a wax ne Cheikh daa yaroon sabar da ngeen ko gis man tey dem naa ci dem naa ci. archive Cheikh Ibra yi bëri naa mais laajte naa ana sabar bi gisuma fenn sabar laajte naa ana sabar gi sabar gi ma gis ñii yor ko di jaaxaan di tëgg ko rëg rëg rëg ne ma Cheikh Ibra amuloon sabar ne leen kon lii gaa yi ko ci dolli lii gaa yi ci dolli ni da am xam-xam da dem ci dara doo ci dem aveuglement da ngay dem nga laajte lan moo tax lii ñëw ñu ñu wax xamal lii lii ñii ñoo ko ñii ñoo ko def mais amul Cheikh Ibra famille bur la bàyyee ko famille bur damel ne fu ñukk ne yakku nakari top señ bi musul tilim musul tux musul nan sangara musul tiaxan gaay tiaxan kat kese ñoko top salte xasu kunu yor seeni sabar toriamba yàmbaa naan sàngara ñu ci bari ak ne dañ koy saketo doy de amul de mais amul de loolu loolu dafa am ay kat yu ñew top sen banexu bakkan rek ne dañ koy yok ci yoon bi par la force doole mbam agresser ñu ñun ñun muri di set tassel yi ñom ñu agresser ñu nañu da ngeen ñuy accepter par force ci suñu xasawaay ci suñu telimay ci suñu ñak bañ liggey ci suñu ñew yar suñu sabar di fecc tok suñu yamba nan suñu sangar ci yeen lañ bok par force non la amé tam ci diine islam moo tax gis nga ñii woote tey ji naan ay dañuy marche di sàkketoo suñu vendredi saint ñu dem julli ji ñoom ñu ñëw dajaloo doon ay politiciens ne dañuy marche ana marche ba kenn wuyu wu leen murid dañoo julli dem seen yoon bàyyi ni ñii caaxaankat lañ murid yi bu ñu ñëwee bu ñu jullee dañu leen fenn ñu ko ne yàq bu naqari dem ñibbi ñoom ñëpp a ñibbi ana marche ba foo leen gis marche ba <laughs> ñu ñett nit ñu def lu pétition amuñu 1000 mouride mat ay millions nga def pétition amoo 1000 moy sa way war nga xamni yow mi do représentant bu baax bi de do représentant bu baax boko nekkon bu fekkon li ñi bëgg gëm lo lolo la hein wallahi billahi tay ji bo profito ci vendredi bi dem salikul jinan heure bi ay junni junni doomu adama ñu nekk ci mbedd mi kenn ak yow ba marché bi sax mu jul am da nga daw nga xam ne fii kenn wuyu si la si tappale nga nekkee ci tappale parce que bu ñu gisee ña fa taxaw ay sëñ Modou Boussa Dieng bandi salte gis fa ay sëriñ Baara Dolli bu ma lay wax nag su mooy moo du député bi sëriñ Baara Dolli ku ku tëddee woon jabaru jàmbur bi ki borom leneen yi ki ngeen gis tey anamu sax tey gis naa ko ci ci vidéo mu melni kuy joy jooy xooba oh, ma de réew ma ngay tak rek den day conférence <laughs> xara nga ngaa fàtte jabar jaabur fi tedde hmm tassem jeuker je dakh ko jeuker je fala jare jaaree yakku entreprise bi tej nga toroxol ko tont ci wéru koor wéru koor yalla yow kan nangou nga jiite ko kan mooy nangu nga jiite ko yow ne da ngay marche pour xeexal Serigne Touba yow nga jiite ko yow yow yow yow kat bi yow tëddeekat du jaboru jàmbur bi yow nga ne yow ay Seexuna Mbàkke manipulateur bu mag a mag a mag dem bind lettre am jaar ci suuf pour mun a am ay carburant ay bon d'essence ay oto ay xaalis ay affaire yor yor hôtel yi ñu gérer ki Fahd di di njaaba njalle ñu rejeté ko Nous rejeté ko Touba dégager le responsabilité eh, Serigne Cheikh def nous ñun binduñu ko santané wuñ ko kon ab la bu gouvernement parce que dañoo nak gouvernement bi gouvernement bi nak ko def ko ni xoj ko nous ko dañoo bëgg nous rek gouvernement bi Nous aw ay milliards yu dem hein, dañoo magal ga ngi do leen gouvernement bi mafia bu jiite ay ñoom sëñ Cheikh naa Mbàkke sëñ Moodu Busa Mbàkke sëriñ Moodu xarit jàng bu buso jàng bu géej Mbàkke bu bu kii nag di dox ci maanu Sénégal yi quoi gars yi sëriñ Tubaa la gëm sëriñ Tubaa la gëm sëriñ Tubaa la ñu gëm gëmuñu seen caaxaan yii nekkuñu ci gars yi mun lan ñu manipuler de léegi bandi salté yooyu ñooy taxaw ay Moodu Baara Dolli gars yi nag indee ñu ne Serigne donc xaw leen def Serigne Moodu Baara Dolli bi ñu jàpp mu tëddee jabaru jàmbur moom ngeen gis tey am na vidéo sax xaar ma ma dem ci YouTube bi quoi war gis naa muy muy woote mu mel ni ku ñuy napp quoi di woote violence kon kii nii ngeen koy bàyyi <laughs> ma ne mais gars yab nañ suñu yoon bi ñii dañ leen war a ñuus ñoom lañu war a ñuus bu ñuus amee ñoom lañu war a ñuus c'est incroyable léegi moom lan la lan la ñu bëgg a gëmloo nañu dem kii violeur bi xool leen viol tëddeekatu jabaru jàmbur bi moom moo nekk nii déglu leen ko de nee na day jooy de <laughs> lii dafa may rey quoi. <laughs> mi ngi nii kii kii moo tëddee jabaru jàmbur bi. xaaral xaaral ñuy jàpp weeru koor muy tëddee jabar jàmbur amatuñu sutura bàyyituñu xel mag képp koo xam ne yaa ngi loolu ci gore yow amoo sutura ci yàlla weeru kooram ngay tëddee jabar jàmbur <laughs> yow nga da ngay wax <laughs> Sénégal daal xar ñi ñoom dañoo dañoo foog ni ay xale yuy doog judd lañ fi fekk yow amoo sutura sax ci yàlla yow weeru kooram ñëpp di woor ngay jabaru ñu la flagrant direct sa koy koy nga koo kooy nii kooy carrément jabar jëkkër ji lu tëll ubbi fekk la ngay tëddee jabaru jàmbur ci biir ñu jàpp la flagrant ak kooy bu tooy kooy bu tooy xapp jabaru jàmbur bi set wecc nga set wecc nit ñu la juddee juróom nan sa ma sagal ma suturaal ma ñu takk la ba nga dëgër yóbbu la tribunal mu am audience bu doy waar miir di yëngu yow yaay taxaw fii tey naan da ay amuñu sutura ak amuñu kersa. waaye ko ñor. <laughs> kii la kii. ma leen di leeral. loo ñuy leeral. kii di Ousmane Sonko. waaw. li ko ñor. Hmm. du lenn. Hmm. lu am ay lobby yu ne ci ginnaaw ñetti lobby. wuy kii xam nga kii politicien la. kii Serigne Touba ko ñor ñu déglu la kii Serigne Touba moo ko ñor kii kan lay jiite. kii kan la Serigne Touba tollu fenn fi nga ne kii moo lay jiite nga ne kii moo yor sa porte parole ci combat ci combat kii. te ma ma ngi politique de dem na ci dem gis ngeen ñii seen robinet la ñuy tëj kàpp ñu jom bi nag jaaxle paniqué parce que mosuñu liggéey toog muy dox la ñetti garam bu la ñuy sol tàng jër lépp dañuy dóor di dugal xaalis di dugal rek di dugal di dugal di dugal rek. ñu ne ko rek bunt yi tëj fatt robinet yi xam nga robinet yi tëjuñu ko sax mais dañ ko tëj ba pare def ci affaire boobu seene ko dugal ci affaire boobu noonu kànnaar ko kànnaar ko ñu ñëw ne nii dara so ton sennul ñu fëgg fat fak fak robinet bi dëgër ñu ni ci yëpp jombi nañ moom ma ngay wax ci ay waxu sonko dem na bàyyi na sax bàyyi na sax Omar Dia ma nga ca sonko <laughs> ma nga ca sonko mooy lobby terrorisme xool salafiste salafiste ressource yi gis ne réew mi am na ko hmm. muy gaz ak pétrole ak yeneen hmm. ñooñu jël na ngir ngeem ko xool leen ngir mu daal <laughs> gis ngeen kon bu leen waxee ne lii ay yu dajaloo ne yeeyoo dañuy dóor pression Ousmane Sonko ak Diomaye pour ñu jële foofu Cheikh Omar non mais Cheikh Omar dañ koy gën a yëkkati Cheikh Omar jomaay bu ñëwee da koy gën a aj Cheikh Omar moo gëm jomaay nag <laughs> Cheikh Omar moo gën jomaay moo gëm jomaay jomaay ak a gëm Cheikh Omar ak a gëm Cheikh Omar da ko gëm ñu ne dañuy nappaate ko <laughs> jomaay nee na man mun la ma chanté loo yéen kaw leen mën a napp ñii ay violeur tëddkatu jabaru càmbur sàcckat Moodu Boussa Dieng man duma ma leen wax sëriñ nag parce que manque respect sëriñ la Moodu Boussa Dieng baara dolli mbàkke taxawaalukat yi naan ko tu sàngara yi ñeen ñoom ñii ne ñooy def lobby quoi ñoom ñooy pression naan waaw xoolal yow da ngay jël jëlal sëriñ Touba wala nga jël <laughs> non gars yi yab nañ sëriñ Touba nag jëlal sëriñ Touba wala nga jël Cheikh Omar ah, léegi dañuy wax sëriñ Touba di ci teg Cheikh Omar Diomaye il faut nga choisir entre sëriñ Touba ak Cheikh Omar ku ne won aduna mën na dox ba nit yi Serigne Touba bay wax waxu Serigne Touba ah wala wala Cheikh Omar y'a problème quoi tay gaay nañu respecter suñu sang bi dama bëgg ñi jox cër suñu sang bi dama bëgg ñi jox cër khadimul mustafa du morom te kenn du ko moromel di wax wax Serigne Touba di ci tek di wax Cheikh Omar rek na jël Serigne Touba wala Cheikh Omar c'est extraordinaire li dafa ëpp ñi ñu rew lañ ay katu whisky lañ ay katu jabaru jambur lañ waxuma la dara mu na ana fu muy jooyee sax nee na ba nga xam lu fi suñ maam yi defoon sëñ maam sa maam sa maam jëmal def la sa maam defon mo gën damal def la sa maam defon sa maam waxul ben yoon bo buma paré kenn du def déedéet <laughs> jëmal goru te dox ci yoon ba mu jëm ci jabar kat bu mag nga ana jabaru jàmbur ba nga tëddee won wi yow mi la yon war a topp ko tëddkatu jabaru jàmbur bi ko moom man fu man fu muy jooyee laa quoi parce que ñii ma oh ba am fu muy fu muy naan day jéem a quoi di film donc dañ ne woon dañuy marche dañ ne dañuy rassembler dara wuyu wuñ murid yeew yi wuyu wuñ leen